da nga évoqué trois points pour réussir la la la réconciliation nationale mais est-ce que waruloo situer les responsabilités ba pare. mais bien si sûr ce, si ce pays-là. mais bien sûr je suis d'accord avec vous. et lan ko diviser mais c'est tout ce que j'ai fait dans c'est tout ce que j'ai fait dans mon livre si vous lisez toute la partie que j'ai écrite sur la démocratie elle est claire simple. je mais les téléspectateurs n'ont pas lu hein. oui mais les téléspectateurs et vous êtes là pour oui. partager ak ñoom mais vous avez raison. Ah. vous avez raison euh, <laughs> vous avez raison euh, wax nga dëgg li ngay wax ni kan moo def lan dama ko bind. parce que tout simplement man nitu dëgg la wax naa li may wax nee naa li ma jëkkee sama livre mooy état bi. kilifteefam daf ko war a réaffirmer waat parce que dëkk mais kenn du fooy état kenn du yàpp état mais nañu dem plus loin lan nañu def ba ñu yàpp état bi kan moo nekk responsable de la désacralisation de l'état kan la eh, non mais mais c'est ce qui dirige l'état mais bien entendu c'est c'est l'état sous Macky Sall ou c'est l'état dans son ensemble madame je ne suis pas né sous Macky Sall j'observe l'état depuis Ab Senghor j'ai servi l'État le plus respecté, le plus normé sous le président Abdou Diouf qui était respecté mondialement. La dégradation de ce pays a commencé en 2000 et s'est poursuivie. C'est clair donc leer na li am tey ba ñu egsi fii dafa di loo xam ne dafa commencé yàqu depuis 2000 fi mu jaar ak yooyu yëpp bind nañ si li ñu si war a bindee. li ñu si war a mais mais nan la ñu yan acte le gouvernement yi posé yu indi la désacralisation de a état. mais boo demee ba état tey. mën naa la jox exemple yu boo demee ba politique jiitu état boo demee ba état il faut nga def politique pour am si place boo demee ba ay direction kii nekk dans l'opposition kii nekk dans la majorité euh, euh, loolu mooy désacraliser l'état l'état il faut le dépolitiser l'état doit être dépolitisé l'administration doit être dépolitisée les services publics doivent être dépolitisés les politiques publiques doivent être dépolitisées mais tey même benn pont bu jaar fi mu war a jaar c'est pour des raisons nga yaakaar ne loolu c'est normal est-ce que yaakaar nga ne c'est normal que plus de 70 pour cent des sénégalais dugg ñu ci ay partis politiques ñu exclure leen de la vie politique ñeenti nit juróom di def lu leen neex loolu yaay yéen a gën a xam lu yàq état bi madame. L'État n'est pas exemplaire. Et quand on est un État, on doit être exemplaire. Est-ce qu'on peut dépolitiser l'État Mais bien L'État, est politique par essence. Non, non, non. L'État est. Non. Est-ce que Warmanu dépolitiser l'État De toute façon, D'accord. La façon de dépolitiser, moi, premièrement, si je suis élu président de la République, aucun chef de service, aucun directeur général n'occupera des fonctions dans des partis politiques. Ça, c'est une dépolitisation. Vous êtes d'accord avec moi Quand je, serai élu, Inch'Allah. Les Et les pardon les ministres mais les ministres c'est les ministres mais les ministres et un cabinet ça me dérange pas un, ministre il, vient d'une formation politique c'est pas un problème mais vous savez que l'administration c'est pas le ministre c'est pas son cabinet ça commence par les directions et c'est ces directions-là qu'il faut dépolitiser moi de mon temps lorsque j'avais été ministre man bi ma nekkee ministre am na ñoo xam ne parti opposition lañ nekkoon directeur général sous man mais mosul nekk sama problème dama daan toog di waxtaan ak ñoom li li amoon importance moo ñu liggéeyal état bi mais tey yàqu-yàqu bi dem na foo xam ne tey il faut dépolitiser l' état pour que sénégalais yi mën a retrouver wu devant le service public bu dul loolu état bi ñëpp moom dañ koy jàpp récupérer ko di ko jox ay parti ak ay formation loolu ànduma si tey ànduma si ëllëg e loolu mooy la plus grande priorité parce que tey dem nañ point boo xam ne même boo bokkul si parti booy liggéey sa liggéey normalement dans l' état euh, doo am li nga war a am donc c' est important Le pays va très mal. Et le pays va très mal parce qu'on a tout politisé. La politique est venue à la place de tout. C'est ça qu'il faut arrêter. Et il faut l'arrêter pour ñu xam ne état c'est un bien public c'est un bien commun il veille à sur l'intérêt général ça me paraît essentiel et loolu on a besoin de mesures sérieuses. Mais est-ce que ce n'est pas réducteur de réduire l'état à la présence des politiques L'État, ce n'est pas les politiques. Ce n'est pas, pas, les hommes politiques qui occupent des postes de direction, ce n'est pas les hommes politiques qui madame, dans le, madame, dans le gouvernement. Euh, L'État, c'est un ensemble, l'État, euh, c'est un euh, tout. Euh, c'est plus que ça. Euh, Soxna Maïmouna, regarde-moi mhm. les yeux dans les yeux. Il y a l'État, c'est des hommes politiques qui occupent des fonctions dans l'État. Ils, ils de des fonctions dans l'État tellement qu'on leur dit que bés bu ñu leen gagné élection yi dinañ leen dàq seen poste. mais l' état du loolu rek euh, El Hadj Ibrahima. lan lan mooy état. l' <laughs> du les états à part l' administration et ses directions. ma ne l' état du gouvernement du administration. du du gouvernement. du direction générale yi kese. nee nga ma ne nee nga ma ne les directeurs généraux mais ne sont pas des politiques je vous ai dit que c'est pas vrai. non non wax ma loolu dama ne. loo est-ce que ce n'est pas réducteur de réduire l'État à la à, forte présence des hommes politiques. mais est-ce que État gënul yaatu loolu parlez-moi d'autre chose aujourd'hui quand dans les directions les services les gens sont obligés d'aller prendre des cartes de parti et quand il y a des élections tout le monde déserte l'État ñëpp dem defi politique. parce que xam nañ ne que ne ku si ku si perdre localité am dañ koy dàq. nga yaakaar ne loolu yoon la wala yow boobu et boobu forme d'État nga bëgg a def Sénégal. moi je ne suis pas. Ah ouais. candidate mais même vous, vous êtes citoyen et en tant que citoyen am na loo war a accepter loo war a bañ lu yàq Sénégal da nga ko war a bañ et état bi mënul continuer di politiser bu comme ça l' état est neutre et l' état son rôle justement nañ dugg un peu dans la théorie politique da xam nga lu tax ñuy def état dañuy def état pour que ñëpp gis seen bopp pour que révolution yi bañ di nekk comme ça bu xeex amee beneen xeex topp si beneen xeex topp si c' est en construisant un état que l' état met fin à la répétition des révolutions ba nga xam ne xeex mooy dal mooy indi jàmm waaye pour que mu indi jàmm il faut que ñëpp gis